sëñ mbi Maguette Diop ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di nuyu di leen sant bu baax euh, si woote bi. ngay secretaire général collège des délégués bu SAR euh, ay fan a ngi nii wala sax ay at a ngi nii ñuy dégg ne société africaine de raffinage dafa nekk ci ay jafe-jafe euh, bokk na ci ay mbuxum ay pertes capitaux ay déficit budgétaire tey nga doon kenn ku fay liggéey di syndicat tamit lan nga am lu nga wax ci coow li nga xam ne euh, wuri na jëm ci SAR. waaw soxna si ginnaaw boobu leen nuyoo leen sant bu seen woote bi. Mm-hmm. damay wax ni rek euh, coow moom yàgg na am saar waaye lépp loo gis rek euh, toujours euh, yëggagul foo xamante ni nit ñi mënuñu ci indi ay saafara. Hmm. saar depuis ay at a dafa am ay jafe-jafe yoo xamante ni mi ngi koy doxaale waaw mi ngi koy doxaale di léeg mu metti ba tar nag waaw ba nga xamante ni dina xaw a jaaxal ñenn ñi waaye toujours suñu borom mi ngi def nii loolu lu ñuy mën a saafara la hmm. ba tey fi ñu fi ñu toll nii tamit loo xamante ni lu ñu mën a saafara la waa lu loo xamante ni daal bu si ku nekk defee sa yitte rek li tàmbali ci état bi actionnaire yi nekk biir SAR direction bi ak personnel bi ñëpp ku si nekk bu si am na am nañ yaakaar ni incha allah lépp dina dina saafara bu neexee yàlla. kon daal nekk nii yaakaar mën naa bañ a tas ñenn ñi di xalaat sax boo moytul dina am ay repreneur ba ñu privatiser ko kon daal si maîtrisable. waaw non euh, privatiser <laughs> SAR fi nekk nii am na ay privé yu fa nekk. Hmm. loolu moom mais euh, partenaire lañ. ay partenaire hmm. lañ ñu bokk biir SAR bokk ci hmm. biir conseil d' administration bi hmm. loolu dafa dafa nekk. waaye fi mu nekk nii daal situation bi ak lu mu garaaw garaaw nit ñi mën nañ ko mën nañ ci indi ay saafara daal waaw. yéen ngeen am benn communiqué yéen collège de délégués bi ngeen xam ne fësal ngeen ko ngeen ci rafetlu liggéey ak njàmbaaru directrice générale euh, bi ngeen ne waaw góor donte jigéen ku njëkk la ci mbir mi comme ni ngeen ko waxee ci seen communiqué yi nan nga jàpp ne sénégale yi loolu lañ war mën a jàng ci communiqué yéen bi ngeen fësal. waa communiqué bi li tax ñu génne ko. Hmm. mooy coow li am fan yi rek ba nga xamante ni coow li génn na ku nekk di wax. Hmm. te bari na wax ñoo xamante ni li ñuy wax. xamuñu ko wala tamit dañuy jaxase li ñuy wax euh, bi coow li tàmbalee euh, ñu bari ñëw nañ wax ni nañu wa génn leen ngeen wax waaye ñun ñoo ni balaa ñoo génn wax dara dañuy mbir moo gis da ngay xool lu ko wund xam nu mu demee xam it euh, lan moo ko yëkkati mm, nga xam ko da nga ciy tey gëstu ko bu baax a baax te bu fekkee tamit suñu borom daa dogal yow nga nekk une voix autorisée ak en quelque part parce que en en tant que syndicat dafa am loo xamante ni da nga a sàmm bu baax a baax li ngay wax da nga xam fu ko war a teg ay nga teg ko si loo xamante ni lu dëgg la. Mm-hmm. waaye li ñu mën a seede daal te yàlla rek tax mooy que ni eh, kii fi nekk jamono ñi balaa mu fi ñëw ñun dafa am loo xamante ni dafa nekkoon suñu yitte. Mm-hmm. moo doon raffinerie bi nga xamante ni da daan daw di taxaw. te li daan waral muy taxaw mooy bu ñu indee cargaison brute bu ñu ko traité ba pare. Mm-hmm. bu loolu jeexee dañuy taxawaat dootuñu am lu ñu continuer dañuy mujj euh, euh, taxaw mm-hmm. di xaar léeg-léeg mu dem une semaine léeg-léeg mu dem ñaari semaine am na si yoo xam ne sax dem na ba weer mm-hmm. wala lu ko ëpp sax mm-hmm. te loolu nekkul du benn du ñaari yoon dem sax ba nga tax ba ba tax ni ñun euh, di année deux mille vingt bi génn nañ ci média yi wax di dénoncer loolu ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni dénoncer na ko. Mhm. di dénoncer. Mhm. yàlla dogal bi mu ñëwee ñun ñu constaté gis ni loolu def na si yitte ba loolu pratiquement jeex na tàkk waaw jeex na jeex na lim fi nekk yëpp pratiquement loolu amu fi. Mhm. beneen bi mooy ay panne technique yoo xamante ne dañ ko doon am tamit bi mu ñëwee mu def si ba loolu suñu borom saafara si lu lu lu ci ëpp. bu doon téeméer la mën nga ni fi mu nekk nii juróom-ñaar fukki yëpp fi mu nekk nii saafara ko ñu gis ni tamit ñun tamit euh, au niveau de la SAR dafa am luñ lu ñu doon seetlu at yi yëpp mooy que ni bu ñu liggéeyee ba at mi jeex nga góorgóorlu bu ñu góorgóorlu ak lépp lu ñu mënti def ak production bu ñu mënti def toujours dañ daan am ay perte waaw léegi nag gis nañu moom ba mu ñëwee ah, si loo xamante ni lu ku nekk mën a teg si bët la hmm. loo xamante ni tamit conseil d'administration moo ko validé ni lii mu wax dëgg la hmm. ni juróom benn weer yi mu fi def def na six milliards cinq de bénéfice loo xamante ni conseil d' administration moo ëppin te it ñu am yaakaar ni yaakaar boobu yàlla boo suñu borom tas mooy que ne bu at mi jeexee lu mu gàtt gàtt dinañ def juróom-ñetti milliards ci ay bénéfice jàpp jàpp jàpp fukki milliards bénéfice kon loolu suñuy préoccupation majeure la woon kon loolu bu ñëwee ci at ci at suñu borom suturaal mu def lool kon ñun tamit warteef la ñu xamal nit ñi ni te li gën a tax sax ñu génn wax affaire boobu mooy dañu dem ba am ñuy dégg ay nit ñuy wax naan nañ ko fi jëlee ah ñun nag ñu ne koo xamante ne yow ñun gis nañ ne mi ngi liggéey mm-hmm. li nga xamante ne moo ñu yitteeloon gën ñoo yitteel Euh, mi ngi ciy def mi ngi ci ciy góorgóorlu ah kon jaadu na ñun tamit ñu génn wax ni ñun lii kat xam nañ ko ci moom du ma ne nag d'accord nañoo ak moom si cent pour cent uh-huh. waaye lii daal moom def na ko te lii doyagum nañu ba tax nañu daal ñu ngi ko siy jaajëfal te it euh, xam xamal ko ne daal euh, pare nañ pour liggéey ak moom ngir yëkkatiwaat boîte bi. d'accord kon ci dégg-dégg soxna si dafa nekk di sowee li nga xam ne dafa nekkoon ci yoonu suux tey kon dàqu leen ne amoon na ay mbuxum yi fa am avant moom muy ñëw taxawaay gi ngeen taxaw tey euh, mënuñu leen cee gisaat pour ngeen laajte ñu auditer su ko defee ay sanctions mën a daawal ci ñi fi ñi fi ñi fi ñi fi njëkk xam nga mënuma wax mbuxum parce que mm. balaa nga wax mbuxum da nga ciy am lu la leer na mbuxum la li nga mën a wax daal mooy nangam manqué na mm-hmm. xam nga nangam manqué na waxul ni nit da koo sàcc wala nit da koo toxal wala parce que li mën a manqué mbir dafa bari mm-hmm. li mën a manqué mbir ci ci barab dafa bari mm. kon man du ma wax mbuxum du ma wax ñun tamit collège bi tamit waxul mbuxum d'accord waaye boo liiree communiqué bu baax mm. am na fu ñuy wax dans le respect des principes directeurs de bonne gestion loolu mooy waaw kon loolu mooy que ni ñun li ñuy wote mm-hmm. mooy lu ñuy def nañ ko teg ci yoon mm-hmm. nañ ko teg ci yoon loolu suñu préoccupation la parce que loolu kenn euh, def naa nit ko euh, képp ci àdduna rek war nga d'accord ci lool mm-hmm. te it loolu la ñuy prôné waaw ñun tamit lool lool loolu loolu la ñuy prôné. am naa yaakaar ne aussi euh, autorité yi ñi ñi ŋànk saar yëpp muy état bi actionnaire bi ak direction bi yëpp. buñ gisee loo xamante ni nit ku jalgati yoon la dinañ ko tegaat ci yoon ñun ñun itam ñun tam en tant que syndicat bis buñ demee ba am ay preuve que ni comme quoi que ni diw def na ndàngam wala Masamba def na ndàngam. Mhm. dinañ dinañ génn taxaw ne nañ ko teg ci yoon lool kay moom ñëpp ci d'accord incha allahu rabbi. Euh, sànq yaa ngi koy wax amoon ngeen euh, bu yàgg. ay jafe-jafe yi nga xam ne yéen a ngi ko doon dund tey jii euh, ci ay jafe-jafe euh, lan lañ ci mën a jàpp. jafe yi ñu am daal mooy lim li ñu wax sànq rek mm. fi mu nekk nii li ñu wax sànq si ci tubaab mooy que ni SAR dafa toll foo xamante ni. dafa soxla xaalis pour def ay investissement investissement yooyu nag li ko waral bokk na ci pétrole Sénégal bi nga xamante ni dafa war a tàmbalee di ball dañ koy xaar d'ici si mille vingt trois yàlla nañ suñu borom may ñu yegg ci te ñu muurloo ko Sénégal gépp ku nekk jariñ ci waaye loolu pour mu mën a nekk il faut ñu def ay investissement investissement yooyu nag biñ ko xaymaa dem na ba toll ci lu ëpp ñeenti ñeenti téeméeri milliards ak ak juróom fukk. Hmm. ci lu toll foofu lay foofu lay war a toll war jëm ba juróomi téeméeri milliards. Hmm. loolu nag ay partenaires financiers ñoo la ko war a ñoo la ko mën a jox ñooñu nag eh, da nga leen di présenter projet boo xamante ne projet bu viable projet bu convaincant. Hmm. pour ñu mën a jël seen xaalis dugal ko biir SAR. bokk na ci tamit li nga xamante ne conditions yi tax nit ñi wër la mooy stabilité et que bonne gouvernance ñun loolu la ñuy la la ñuy la ñuy prôné fii au niveau de la SAR. te it wax fa yàlla euh, biñ ñëwee ndaw si fi nekk biñ ñëwee bi mu ñëwee léegi lim ñu wanagum daal. ak mm-hmm. li ñu mën a seede si moom mooy que ni loolu mi ngi ci. <laughs> d'accord kon bu ma la déggee li ngeen soxla yéen euh, seen boîte mënu leen ko jox bu weesoo tamit euh, suvention bi nga xam ne da ngeen koy ci état. waaw moom état ah bon état moom bëri nay pexe état moom bëri nay pexe du mais pour le moment daal liñ gisagul état mënu ko génne. Mm-hmm. waaye ñun nag en tant que entreprise en tant que ñoo évoluer dans le secteur euh, des finances <laughs> mën mën nañ bu ñu état jàppale actionnaires yi ñu nekkal jàppale ñu bu fekkee tamit mën na nekk ci biir actionnaires yi ah, koo xamante ni mën na dox rôle boobu pourquoi pas ñu ñu bañ ko utiliser mais tamit bu fekkee tamit keneen koo xamante ni la ab jàmbur la tamit bu jigee feneen mën a respecter Euh, condition yi nga xamante ni arrangé na Sénégal arrangé na saar SAR mhm. ah pourquoi pas aussi ñu dem foofu chercher xaalis boobu pour indi pour mën a def extension yooyu mhm. tey ndax yaakaar euh, am na ci SAR ak pétrole boobu nga xam ne wax nga ko sànq dina commencé bal deux mille vingt trois tey ndax yaakaar am na ci seen wàllu liggéey yaakaar bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. yaakaar bu baax am na si biir SAR ndax lenn dafa am loo xamante ne suñu borom da ko dogal mooy que ne waa SAR ay professionnel lañ ay professionnel ñoo fi nekk mbaarum wàllum raffinage moom wax fa dëgg yàlla eh, yàlla nañu yàlla lafal cat wax fa dëgg yàlla wa SAR ñu si xarañ lañ bu baax a baax et ils sont respectés à travers le monde entier. Mm-hmm. Eh, yéen beneen yaakaar bi aussi mooy que ni SAR li nga xamante ni mënagum na ko di ko defal mi ngi koy defal boppam mu jëm ci extension eh, raffinerie bi maanaam mu jugee capacité de mën-mënum. li mu li mën a togg mhm. par at jógee jëlee ko si million ak ñeenti téeméer ak ak ñaar téeméer yi euh, tonne par at ñu jëlee ko si mil yóbbu ko si million ak genn wàll mhm. loolu moom ñu ngi koy ñu ngi mi ngi mi ngi nekk en phase de réalisation nekk balaa yàgg incha allah dinañ ko lancer fi mu nekk nii tamit ñu ngi nekk entretien général mooy arrêt métal ñu ngi ci ñu mi ngi nekk en cours ñu ngi koy def euh, mhm. arrêt métal boobu aussi moom la ñuy boole ak extension boobu yooyu yëpp loolu mooy première phase extension bi Mm-hmm. mais dafa am beneen phase boo xamante ni moo gën a mag. waaw pour ñu def ko phase boobu nag moom moo laaj xaalis pour mën a exploiter convenablement euh, pétrole sénégalais bi ñuy wax parce que pétrole sénégalais bi ñuy wax. Euh, l'autre euh, fan yi keroog bi président de la république monsieur Macky Sall nekkee Diamniadio mi ngi koy wax mi ngi koy wax foofu ni cent mille baril leen maanaam téeméeri junni baril yi nga xamante ni moom la Sénégal di génne par bis. Mhm. buñ tàmbalee deux mille vingt trois. Mhm. fanweeri junni yëpp SAR lañ koy dessiner. d'accord te SAR fi mu nekk nii mënagul traiter fanweeri junni pour mu mën a traiter fanweeri junni yooyu mu def extension te extension boobu nag pour mu def ko. Euh, gëstu nañ ko ba xayma ko ci lu mu gàtt gàtt war na tem ñeenti téeméer ba juróom fukki milliards. Mhm. jàpp ñeenti téeméer ak juróom fukk ba jàpp juróomi téeméeri milliards. kon loolu xaalis la boo xam ne dañ ko war a dem wuti jiwaat. Euh, recapitalisation bi nga xam ne. Euh, ñu koy tudd tamit. Mm-hmm. loolu lan lay wundu. wa xam nga euh, société buy dox ak war a màgg dafa war a méngóog dayoom. Mm-hmm. dayoo société bi. Mm-hmm. loolu moo bokk na si li nga xamante ni moo ko laaj. waaw bokk na si tamit yenn jafe-jafe yi ñu doon dund ci côté finance bi financier yooyu aussi bokk na si li wund tamit ñu war a recapitaliser. Mhm. parce que mbir boo ko yoree nga moom ko euh, bu tolloo fenn fi bu amee yenn jafe-jafe su côté finance ñi nga xamante ni ñoom ñu lay njëkk a concerné mooy actionnaire yi nga xamante ni ñoo moom ñoom ñooy premier concerné yi kon ñooñu la ñuy laaj ku nekk euh, li nga mën nga dugal ko si société bi pour société bi gën a dundaat. waaw aussi pour que société méngoog dayoo bi mu war a am. ndax ñi ngi wax ni saar dafa war yokk mm-hmm. dañ ko war a yokkaat mu méngoog euh, pour mun euh, jël li nga xamante ni moom la ñuy génne si exploitation pétrole bi pour saar exploité ko kon lool dafa war a méngoo saar dafa war a méngoo ak lool mm-hmm. moo tax recapitalisation bi ñu ni kon euh, bi nit ñi xoolee ba ñëpp d'accord ni lii dañ ko war a def loolu loolu o si d'accord mm-hmm. muy état bi actionnaire yi ak personnel loolu ñëpp si d' accord kon kon lu war la. lu war mu am euh, ñi nga xam ne SAR day liggéey ak ñoom. Mhm. nga wax ko tout à l'heure bokk na ci locate Locafrique ñu dégg mhm. leen ñoom euh, seeni i avocat seen i conseil génn di ñaawlu euh, yenn ci doxalinu di ay partenaire tey coow loolu lu lu xew. waaw li xew exactement loolu moom xam naa ñoom ñoo ci gën a mën a placé pour wax ko ak ñoom direction SAR mais ñun li ñu wax en tant que travailleur en tant que syndicaliste. mooy que ni. Mhm. lépp lu ñuy def rek nañ ko pexe mu tegu ci yoon teg euh, euh, àqu Sénégal sàmmonteeg àqu raffinerie bi. Mhm. te it buñ ci lor kenn buñ ci lor kenn waaw. d'accord parce que ñun en tant que personnel li ñu gën li ñuy yitteel mooy ñu sàmm àqu sénégalais yi lu ñuy def muy luy jariñ sénégalais yi. Mhm. lépp lu ñuy def muy luy jariñ raffinerie bi lu muy def tamit. mu bañ a lor kenn koo xamante ni dafa nekk ak ñun di ñu liggéey di di liggéey ñun. Locafrique boobu ñu tudd aussi euh, dañuy fàttali am nay jamono. Mhm. Euh, jàppale na SAR si lu baree baree bare te tamit lu bare jar a bàyyi xel la mais ñun aussi en tant que syndicaliste li ñuy prôné. Mhm. mooy que ni. Euh, li olof di wax ne balaa ngaa dàq kéwal mu dem àll nga dàq ko mu dugg ci biir kër gi lépp loo xamante ne daal ñu ngi koy def ci biir mhm. secteur bi wala ñu ngi koy def ci entreprise pétrolière yi entreprise sénégalaise yi la bëgg état bi gën leen ci dooleel gën leen ci euh, jàppale. Mm-hmm. loolu yamul ci biir génnewuñ ci biir SAR aussi biir SAR aussi lu ñu ciy def rek ñun en tant que syndicaliste suñu taxawaay mooy nañu nañu privilégié li ñuy wax ci tubaab la préférence nationale. te it du ñu nangu aussi wala tamit du ñu d'accord si ñuy xañ ab sénégalais di ko jël di ko jox beneen kañ ay ñeneen ñoo xam li ñu bëgg daal mooy ñun travailleurs yi ak syndicalistes yi yëpp li ñu bëgg mooy que ni fi mu nekk ni mhm. secteur bi dafa soxla dal. saa dafa soxla dal parce que sànq ñu ngi koy wax ni eh, dañu war a wuti xaalis te fépp foo xamante ni coow am na fa rek pour nit ñi dem génn war a mun wuti xaalis pour defar loo xamante ni day jariñ réew mi dina compliqué de trop trop trop mhm. voilà loolu loolu def naa ay principe la yoo xamante ni nekk xam na ko mhm. ci dans le monde des finances li nga xam ne ñu ngi koy dégg ñoo ngi ne Sénégal mhm. dina am pétrole deux mille vingt trois la ñuy door exploitation bi euh, kon wàllum courant euh, doo du doon ci euh, jafe-jafe ci mim réew ndax li ni mel am pétrole dina wund ne dinañ am indépendance énergétique waaw am pétrole kese taxul mu taxul nga am indépendance énergétique hmm. waaw parce que dafa am loo xamante xamante ni am loo xam ne il faut nga fàggandiku woo ba pare pour mën a dem ci lool ndax euh, ki nekkul ni da ngay am pétrole rek am indépendance énergétique automatiquement am na yoo xam ne da nga a def mm-hmm. euh, ngir jëmale sa politique pour mu dem ci indépendance énergétique déjà euh, pays bu si nekk mm-hmm. la nga xamante ni moom la la sa sa sa suuf wala sa géej wala sa leneen li nga xamante ni daal moom nga am mm-hmm. loolu ngay boole pour taxa taxawal sa politique énergétique te defe na ne état bi comprendre na ko parce que tey gaz bi nga xamante ni moo feeñ Saint-Louis fële projet gaz to power dina ci indi lu am solo mhm. waaw buñ ko boolee tamit euh, li nga xamante ni mooy génn si pétrole bi pour ñu jariñoo ko dëgg dëgg dëgg fii au niveau du Sénégal il faut ñu am raffinerie boo xamante ni raffinerie bu mucc ayib la raffinerie boo xamante ni dina mën a traiter mhm. le pétrole sénégalais bu convenablement mu ngir mu jariñ euh, askan askan wi mhm. te loolu nag si la SAR nekk ci lan faar nekk tegagum na benn jéego mooy jéego boo xamante ni li tollook mën-mënam li tollook kàttanam saar def na ko. léegi nag mu def beneen phase boo xamante ni dañ ko dañ ko war a dañ war a dem wuti euh, koppar yi koy defar. Mhm. waaw loolu yëpp nag il faudra que ñu def ko aussi. te gouvernement bi il faudra que mu jàppale Euh, saar si loolu euh, jàppale sénégalais yi si loolu. sëñ bi Maguette Diop secrétaire général collège des délégués de la SAR ñu lay jaajëfal bu baax a baax. maa ngi leen di sant di gërëm bu baax a baax jërëjëf.